أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñoo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ñu ngi fas yéene fàttalante ak yéen ci dundu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ay jaar-jaaram te mooy siiraam muy biographie yonent bi tey incha allah ci kàttanu borom bi tomb bi ñuy jël mooy al isra'u wal mi'raj mooy rañaanu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al isra'u moom mooy jóge màkka ñëw midin al mi'raj moom mooy jóge baytul maqdis jëm kaw asamaan al isra mooy jóge màkka ñëw baytul maqdis al mi'raj mooy jóge baytul maqdis dem kaw asamaan moom la ñuy wax al isra wal mi'raj nee na yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rañaan na dem baytil maqdis bi muy dem dafa war fas wu ñuy woowe alburaq fas woowu nag am na lu ci boroom xam-xam yi wax lu ci baree baree bari waaye dina doy rek ñu gàttañ lu ci ñi maandu li ñu wax mooy alburaaq la yonent bi waroon waaye ci àndandoo kan ginnaaw fas woowu yonent bi war muy alburaaq nga xam ne fas wi jëmm ji wax nañ ci yaram bi boroom xam-xam yi wax nañ ci fas bi tolluwaayam gàttaayam wala amuk yaramam mu ngi mel ne fas boobu nekk ci àll bi ñu naan ko berkelle te mu am ay rëdd njoolwaayam comme mbaam la toll jëmm ji fas la waaye bopp bi boppu nit mu am ay laaf boroom xam-xam yi nee nañ fas boobu bi allahu subhanahu wa taala woowee jibril ne ko sama soppe bi dafa war a rañaan tey jóge makka dem baytil maqdis jóge baytil maqdis ñëw ci pays sell yi wuy si boroomam da ko ne demal biir aljanna nga seet fa benn fas bu mu war ci ñenn ñi lu ñu nettali ñu ne bi mu duggee biir aljanna dafa fekk fas yi di cëppi-cëppi mu leen di romb ba mu yegsi ci alburaq mu gis ko mu ngi triste mi ngi réglé benn place mi ngi mel ne dafa feebar yu ñëwee ba janoŋ moom mu ne ko lan la luy sa jafe-jafe luy sa sëngémtal luy sa naqar mu ne ko dama mës a dégg ñuy wax yonent yàlla muhammad ki gën ci jaam ñi dana mës a tukki jóge kaw suuf ñëw kaw asamaan te fas lay war mu ne ba ma ko déggee ba léegi awma mbégte lu dul may ñaan sama borom ma nekk fas boobu mu ne ko kon yow la mu daal di jël alburaq moom jibril daal di koy wàcceel yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent moom la war keroog ba muy dem guddig rañaan nga di jokkoo jeeg boroomam subhaanahu wa taala nee na balaa muy dem kaw asamaan jaar na barab bu ñuy wax baytil maqdis muy jàkka jooju nga xam ne yonent yàlla suleymaan moo ko tabaxoon moo jiite woon tabax ba jinne yi di ko tabax jàkka jooju nga xam ne mooy ñetteelu jàkka ci lislaam jàkka jooju nga xam ne mooy première xibla ci jullit yi jàkka jooju nga xam ne tey jii yahud yaa ngi ko nangu ci loxo jullit yi mu nekk benn defet bu rëy ci jullitu tey ndax jullit yi démb moom libéré woon nañ jàkka ji ci jamono Omar nangu woon nañ jàkka ji ci jamono Salahuddin nangu woon nañ jàkka ji waaye jamono tey bi jullit yi yàccaaral nañ ba yahud yi nanguwaat jumaa joojule jàkka jooju nga xam ne keroog yonent bi bi muy gàddaay jaar na fa bi muy rañaan jaar na fa muy ba baytil maqdis wa hunaka salla bil anbiya'i imaman foofu la yàlla yonent bi alayhi salaatu wassalaam jiite mboolem yonent yi yàlla dekkil leen yonent yàlla muhammad jiite leen ci place bu sell boobu moo tax yàlla bi muy wax jàkka ji subhaana allazi asra la wax bi abdihi laylan min almasjidi alxaraami ila almasjidi al aqsa allazi baarakna xawlahu jàkka ji nga xam ne li ko wër yëpp biir ak biti yàlla def na ci barke jàkka jooju keroog la yonent bi jaar allahu subhaanahu wa taala ci mën-mën a kàttanam mu dekkil yonent yëpp yonent yàlla muhammad jiite leen mu départ nag daal di rañaan jëm kaw asamaan mu njëkke asamaanu adduna bi fa fa wajada fiiha aadam fekk fa yonent yàlla aadama alayhi salaam summa assaaniya mu ñëw ci ñaareel bi mu fekk fa ñaari mbokk ay cousin muy isa ak yaxya mu départ ñëw asamaanu ñetteel raa biha yusuf mu fekk fa yusuf alayhi salaam mu départ jëm asamaanu ñeenteel ca barab boobu la fekk ku ñu naan idris alayhi salaam mu départ dugg asamaanu juróomeel fala fekk yonent bu ñuy tuddee Haarun alayhi salaam mu départ jëm asamaanu juróom benneel moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ra'a biha Muusa fala fekk yonent yàlla Muusa kalimullah ka doon wax ak yàlla subhanahu wa taala moom yonent yàlla muhammad mu dépare asamaanu juróom benneel jëm juróom ñaareel ca place boobu la dajeeg ibrahim xalilu rahman xaritu yàlla bi alayhi salaam summa balaga sidratul muntaha mu dem ba ca siddéem googu ñu naan siddéemu yemukaay garabu siddéem googu nga xam ne moom lañ naan sidratul muntaha muy siddéemu yemukaay foofu la yëkkati ko moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam jëm ci néeg boobu tudd baytil maamuur te yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne bis bu ñu xëyee juróom-ñaar fukki junni malaaka danañ fa dugg te ku fa dugg dootoo fa duggaat te saa yu ñu xëyee juróom-ñaar fukki junni malaaka danañ dugg ci néeg boobu te benn yoon dong nga koy du nga koy dugg ku ku dugg dootoo duggaat te bis bu ñu xëyee juróom-ñaar fukki junni dinañ ci dugg wa hunaka raa jibril ala surati foofu nag ca balaas boobu ca la yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam gisee jibril ca melokaanam ca jëmmamu jëmmu malaayika na ko yàlla bindee ndax jibril bu daan ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam day yor malakaanu ab nit ab jullit ab sahaaba bu tudd dihiyatul kalbi melokaanu sahaaba boobu lay jibril daan ñëwee ci yonent bi waaye tey ci ñoom ñaar seen ànd bi seen tukki bi ci pee yu sell ya ci place bi ñu naan sidratul muntaha muy siddeemuk yemukaay gi keroog fii la yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam gise jibril ci melokaanamu malaa'ika waaye jibril ne ko fii laa mën a yem mënatumaa dem ndax amul kenn ku nekk ci ñun lu dul am na fu mu war a yem boroomam man fii laa war a yem mënatumaa dem nit yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam départ fekk ji boroomam subhaanahu wa taala wa kallamahu rabbuhu boroomam daa di déyanteeg moom daa di wax ak moom wa aataahu ma aataahu borom bi yemul rek ci wax ak moom waaye jox na ko la mu ko jox jox na ko kado bu rëy jox na ko kado bu màgg bu sell bu yiw wa farada alayhi salaatul xams farataal na ci moom julli yi juróom badalan min xamsiin ginnaaw ba mu nekkoon juróom fukk li tax ñu jële ko ci juróom fukk yóbbu ko ci fukk di ko jële di ko yóbbu ba mu nekk juróom ana lan moo waral ñu jële ko ci juróom fukk yóbbu ko ci juróom mooy yonent yàlla Muusa alayhi salaam Muusa yonent yàlla Muhammad romb na ko ci asamaanu juróom benneel mu ne ko foo jëm mu ne ko ca borom bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dem ci boromam ba ñëwaat comme Moussa moom dafa mébatoon gis yàlla gisu ko mu gis ku gis yàlla a yëf yi daal di koy neex lu la yàlla wax mu ne ko jox na ma kado juróom fukki julli ah mu ne ko sa xeet day àttanuñu ko ndax sama xeeta leen ëppoon doole ëpp leen jot ëpp leen waxtu waaye mënuñu ko woon def mënuñu woon def jaamu yàlla bi leen yàlla santoon dellul boo demee nga ni sa boroom na la ko wàññil yonent yàlla Muhammad dëpp yàlla wàññil ko mu ñëwaat Musaa waxaat ko mu dëppaat yàlla wàññi mu ñëwaat Musaa ne ko dëppal boroom xam-xam yi nee nañ vaye vien boobu Moussa doon def bugguloon yonent bi dem ndax comme moom daa bëggoon gis yàlla gisul yàlla mu gis ku gis yàlla loolu neexit googoo ko jàpp ba buggul yonent bi dem waaye ci place boobu tamit am na lu ci boroom xam-xam yi di wax ci yonent bi gis na yàlla wala gisul yàlla ala kulli xaal jullit ñi wuute nañ boroom xam-xam yi wuute nañ ci yonent bi gis na yàlla wala gis ko Aïcha am na lum ci wax Aïcha am na lum ci wax Abbas am na lum ci wax tomb boobu yàlla rek a xam ala kulli xaal yàlla subhaanahu wa taala farataal na ci yonent bi julli mu nekkoon juróom fukk yonent bi di ñëw Moussa di ko delluloo muy wàññi par fukk di wàññi di wàññi di wàññi di wàññi ba mu des juróom Moussa ne ko dellul yonent bi ne ko rus naa di delluwaat ci borom bi subhaanahu wa taala bàyyil ma dem yóbbu juróom yi saa yu demee rek ci boromam boromam dina wàññi juróom juróom fukk ñu wàññi juróom wàññiwaat juróom wàññiwaat juróom ba mu des juróom waaye keroog ba yonent bi déparé borom bi subhaanahu wa taala woo na ko ne ko yaa ngi dem de juróom nga yóbbu waaye juróom fukk yama waxoon de tiyaaba yi rek laay bindaat ndax man yàlla sama wax du soppeeku maa yu baddalul qawlu la dayya juróom fukk yi ma waxoon daal même bu ngeen defee juróomi jullit juróom fukki tiyaaba yi laay bind kooku mbaaxu sunu borom subhaanahu wa taala la fa lamma axbara rasul sallallahu alayhi wa sallam qawmahu sabahan bi hadis al isra'i wal miraj bi yent bi sallallahu alayhi wa sallam ñibbisee nag lu des mu war a xabaar nitam ya ña ka yàlla yónni woon ca makka ne leen biig ci guddi de jóge naa fi dem baytil maqdis jóge baytil maqdis dem kaw asamaan ba mu xëyee fas leen ko nettali ñoom ñëpp ñu weddi ko te pourtant melal na leen baytil maqdis te musu faa dem boroom xam-xam yi nee nañ keroog bi ñu laajee yonent bi alayhi salaatu wasalaam yow musoo tukki dem baytil maqdis ba pare nga ni dem nga fa nu mu mel allahu subhanahu wa taala dafa yónni jibril mu indil ko maquette indil ko poster photo écran tegal ko ci kanamam moom sayduna muhammad alayhi salaatu wassalaam jibril téel ko ko muy melal gaa yi jàkka ji nu mel place bi fu mel fu nekk mu wax leen te musu faa dem waaye ci écran bi la tiim di leen ko wax nee na wan na leen di leen melal di leen melal ba wax leen ne romb naa benn caravane boo xam ne ay commerçant lañ ñu ngi ñëw romb naa leen place sàngam jóge saam nee nañ keroog ñëpp a weddi ba mu des Ababakar as-siddiq radiyallahu anhu keroog la am garaat boobu tudd as-siddiq faqad saddaqahu bima xadasa bihi dëggal na yonent bi ca la mu ko wax looloo tax mbokk jullit yi keroog lañ ko tuddee as-siddiq faqad kaana al israau wal miraaj jasadan wa ruuxan boroom xam-xam yaa ngi wax ci tukki gàddaay muy laylatul isra wal miraaj ñu ne ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa demee yaram kese wala ruuxam kese la demee bi muy dem ndax yaramam la demee wala ruuxam waaye li wir mbokk yi moo yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam yaram la demee ak ruuxam loolu moo tax yàlla ne subhaana allazi asra bi abdihi bu doon ruu bi la kese du am sens waaye jëmm ji ak ruu yi ruu gi la yàlla yóbbu wa kallamahu rabbuhu min gayri turjamaan yàlla wax ak moom te amul interprète ku nekk seen diggante di jottali yàllaay wax yonent bi dégg kenn nekkul seen diggante ndax ka ñu yónni woon sax muy jibril mu war a jëli yonent bi alayhi salaatu wassalaam dee ngeen ba mu ñëwee lan la wax yonent bi mooy man day mënatumaa dem mënatumaa dem ndax fii laa war a yem kon yàlla bi muy wax ak yonent bi kenn nekku fa amul ku leen jokkale direct la yàlla doon wax ak yonent bi loolu moo lay won ne yonent alayhi salaatu wassalaam bi muy dem ci yàlla ruugee dem ak jëmm ji su kenn lay naan ruugee dem ñaari yépp a dem ruugeeg jëmm gi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yi kon leylatul isra wal mi'raaj a ngoog ñun ñëpp nañ ko jàpp muy tukki bu yonent bi def jóge màkka dem baytil maqdis jóge baytil maqdis jëm kaw asamaan romb asamaan yi juróom-ñaar asamaan bu nekk mu fekk fa ab yonent première asamaan fekk na fa aadama ñaareelu asamaan fekk na fa ñaari mbokk isa ak yaxya ñetteelu asamaan fekk na fa yusuf alayhi salaam ñeenteelu asamaan fekk na fa idris juróomeelu asamaan fekk na fa haarun juróom-benneelu asamaan fekk na fa muusa juróom-ñaareelu asamaan fekk na fa ibrahim alayhi salaam yonent bi dem na ba ca siddéem ga jaar na baytil maamuur gis na jibril ni ko yàlla binde ci jëmmam bal boroom xam-xam yi nee nañ sax ba mu gisee jibril dafa xëm loolu yàlla subhanahu wa taala mu ngi ñu koy nettali ci wan najmi wa laqad ra'aahu bil ufuq gis na ko ca gox ya gis na ko ci sidratul muntaha indaha jannatul maawa is yaxsa sidrata ma yaxsa yàlla subhanahu wa taala recevoir yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam jox ko kado bu rëy bu màgg boobu di julli nga xam ne ñu ngi ko farataale ci kaw asamaan kenn farataale wu ko sax ci suuf kon jullit yi war nañoo xam lu rëy li leen yonent yàlla muhammad indil te mooy jëlal leen kado ci seen boroom lu toll ne julli yàlla defoon ko muy juróom fukk waaye yàlla ci mbaaxam di ko wàññi di ko wàññi ba mu nekk juróom aka neexoon tey jullit yëpp xam loolu taxaw ci xam ne nit waruñu ko jox kado muy sàggane kado bi tey nit lu mu yées yées yées bu yëkkatee dara jox la da ngay gis sax yenn saa yi bu dee mbubb waa ji ne la mbub mi du ma ko maye parce que diw ma ko jox munu ma koo joxe parce que diw moo ma ko jox waaw kon naka la ñuy yonent bi di indilee julli ñu koy sàggane jumtukaay jaamu yàlla goo xam ne yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam nee na ku ko def dugg aljanna yonent bi départ ba kaw asamaan indil ñu ko loolu tax mbokk yi war nañoo góorgóorlu xam li ñu am xam yonent bi xéewal yim ñu indil yonent bi dem ba dajeeg boroomam boroomam subhaanahu wa taala di wax muy dégg loolu moo tax ñu ne ñenn ñi naan yonent bi gis na yàlla jël xadisu abbas ñi ne gisu ko xadisu aïcha lañ jël diggante boobu loola fa nekk ñi ne gis na ko ñi ne gisu ko waaye wax dëgg yàlla romb xel nangu na romb barab yépp dem ba jibril mënta dem moom mu dem mu dem ba subhanahu wa taala sunu borom di wax ak moom xel mën naa nangu nekkoon gis na ko almuhim nit ku nekk fa nga ca mën a bokk ci ñaari xadis yooyu gis na ko wala gisu ko li ci am importance mooy lam fa jële nga jéem koo dund nga jéem a dund lam fa jële la ko allah subhanahu wa taala jox ci ay xéewal ak ay taraanga moom mi ko fa jële yow nga jéem cee bokk ndax nga jéem cee am dara lam fa jële ma ne bu nu amoon kilifa gu mag mu dem gisal ñu kilifa gu mag kilifa gi jox ko dara mu indil ko njabootam ci biir kër gi kenn du nangu la sa sa baay indi wala kilifa gi indi nga bañ cee am tey bu doon ay portable la kilifa gi indi ko ne portable yaa ngi ni ku nekk ñëwal jël bi la neex yaakaar naa ne jiiroo dana bëri ku nekk dana xeex pour tànn bu marque nangam nangam laay jël waaye kenn du toog croiser la balaa ne man bokkuma ci bëgguma soxlawuma bëgguma cee am kenn du wax loolu kon mbokk jullit yi ci kàttanu buur yàlla subhanahu wa taala li mooy sunu dars tey incha allah ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu def ci ñun dégg ak topp yàlla subhanahu wa taala nangul ñu ko mu nekk yàlla kese kese asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.